salaamaaleykum waa Sénégal ñun sénégalais yi nekk Russie ñun ñooy ñëw di wax ak yéen parce que dañoo am benn problème boo xam ne daf ñu métti lool. problème bi mooy ban problème problème mu passeport ñun ñu ngi fii sénégalais on est on est plus de cent sénégalais yoo xam ne seen passeport yi ñu ngi waaj a jeex xam na ñoo xam ne seen passeport yi jeex na ba pare. am na ñoo xam ne ay étudiants lañu seen passeport yi buñ buñ buñ ñu ko renouvelé ñoo ñu eh, seen université yi ñu leen jox visa te buñ leen joxlee visa dañuy nekk fii sans papier dañ leen wala ñu jàpp lañ tëj leen. am na ñoo xam ne dañoo soxla seen passeport yi les moodu moodu yi ñooñu bu ñu bu ñu amulee seen passeport yi duñu mën a liggéey benn liggéey parce que liggéey yi ñu ñu mënut a liggéey fii yëpp dañ lay laaj passeport. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tam dañuy bëgg a takk seen seen dañuy bëgg a takk soxna tey passeport mooy takk soxna bu ñu am amulee passeport ñu mun a takk soxna mm-hmm. donc ñun ñu ngi taxaw fii di jooy di jooyantu pour que mm-, état bi ñëw à notre secours parce que ça fait très longtemps boo xam ne ñu ngi daw si ginnaaw suñu ambassade pour ñu mun ñu jàppale ñu andi ñu fii commission wala ñu trouver ñu beneen solution boo xam ne dinañu permettre ñu mun a euh, renouveler suñu passeport yi pour ñu nekk en paix mais ñun boo ba léegi suñu ambassade defuñu benn réaction boo leen waxee ñu ne la commission ñëwoon na fii deux mille vingt et un dugg na fii génn na pale te loolu nekkul benn affaire boo xam ne ñu dañ koy fooyee parce que suñu euh, suñu avenir moo ci nekk. Donc, je vous, je vous prie, Monsieur le Président et Monsieur euh, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal de l'extérieur ñu ñëw au secours des Sénégalais yi nekk fii ñu ngeen renouveler ñu suñu suñuy passeport yi ñu mën a nekk en en paix merci beaucoup.